dinaa ko défier incha allah. boo nee défier la kay. le 29 ma défier ko. daan ko. kon Tarba fi ah waaw loolu ba ñu jekkee kay du léegi ndax ti euh, kenn du def événement bu toll noonu bàyyi ba dem ba ci cëppaandaw gi de waa waxu jekk ñun jekk nañ bu yàgg sunuy xarit ak sunuy nit ak sunuy am di jàmm ak ñi ñu yéene waajal nañ ñu ku ci mel ni nowel pare nañ yàgg na. sañ sa ba rafet bëggal soppee rek a ci des. waaw loolu moom yaakaar naa ni euh, lu munta ñàkk la loolu buñ ko defee dafa war buñ ko deful daa war euh, sant yàlla nag bañ ko ba koy def parce que euh, buñ ko defee seen doom lañ ko man digne fils de Grand Dakar ñaari tali la, ndax bi ma juddoo ba léegi mosuma génn fii ngeen ma fekk fii fay lu mu guddi guddi guddi guddi guddi ak fu ma mën a nekk fii laay fanaan euh, ma nekk fii ak sumay yaay ak sumay papa ak sumay frère ak sumay sœur kon lépp lu ñu ma def rek dañ ko def seen doom te lu war la man lépp lu ma am rek Grand Dakar la fépp fu ma mën a dem ci àdduna tamit Grand Dakar laa fay représenté te Grand Dakar nag dañoo rafle woon ndaanaan waaye surtout Sangoné bàyyi nii toog <laughs> kii mooy euh, Ousmane Noël, euh, le président du mouvement MJK de Kaolack. Le lion. Le lion de Diène Farba Sarr. di suma mak, di suma xarit euh, di kilifa yi ci man parce que yaakaar naa ni ku lay digal lu euh, bu le gissé nga nga nga aw ci yone bu bu nak bo xamanteni xamante ne la wala nga bëgg fa jaar amana sax it boo ci xamul dara mu téré lako ko kilifa la ci yow ta mom fofu la tollu ci man Euh, ñëwoon tey seet si ma euh, indil ma soutien om ci sama bis bi nga xam ni aw ma lu dul aw ma lu ko gën a rëy ñëw ànd ak ay xaritam ak ay mbokkam ak ay am di jàmmam indil ma ay teraanga yu dul jeex sama album génn na tey la ñëw jënd ay CD yu baree baree baree baree bari jënd ay ticket yu baree baree bari bologu bologu ticket yu baree bari offrir ma ko ni ma may ko sa fans yëpp ñu ñëw baal si la te yaakaar naa ne ku bëgg sa réussite rek lay defal loolu. oui Bour tu sais j'aime la musique Je suis enjoy aussi euh, dama Qui euh, suis ma nekkal man Ousmane nayel ko ne dugg ci tricher je dugg ci lu mo gëmul duma dugg ci li franchement sentir mako et donc euh, Tarba dama koy dama koy sentir Tarba il a une voix d'or euh, Tarba wax naa ko sànq li ma gën a neex ci moom mooy euh, am engagement am détermination waaye am na yar bu nekk ci moom sang la donc fii la juddoo fii la yaroo fii la màggee comme wax na ko bu yàgg na waaye fexe na ba am base nit ki boo amul base lépp looy def te amoo base bàyyil politique bi may def soo amul base bàyyil musique bi muy def man gëm naa ne musiciens yëpp yu fi nekk à part Youssou Ndour foo Tarba Mbaye rek fi am base Youssou Ndour moo fi am Médina mais Tarba Mbaye rek moo fi am franchement Grand Dakar boo demee ñi Pikine dañ ko bokk ñii lii dañ ko bokk mais kan moo ban woykat moo ñeme dugg Grand Dakar ak ñaari télé nangam amul. ku fa dugg ku fi dugg xër gi dootoo ko defati. yaa ngi dégg ah, waaye fii moom xam yaa ngi dégg donc loolu ko yàlla may yàlla may na ko base bi nga xam ne am na ay doom moom moom maanaam je veux dire que ne bu yemoon fii rek di musique rek amul boîte Grand ñaari tali fu ñu fàqee amul amul benn benn benn benn boîte bu bu ko bu ko mën a tenir fii Sénégal amul. kon on pour réussir 100 ou 1000 c'est pour réussir grand théâtre mais du lolo, du lolo, ban tarba lañ fay ban tarba lañ fay ma dama ko ñaanal fait. Je ko dañ euh, Je Abdoulaye dana wax ne li Je na na na a fait Je ba ci Je ñu ko bi Je war laa jëmale la penku suul la nga nga nga féetoo soow beneen beneen fas kon loolu cat la nit mu nga def lu baax ñu suul la nga dëpp wala ñu suul la nga féetee beneen lu lu penku man donc tarba pare na tarba voice bi nice macha allah tarba mbooloo mi alhamdulilah waaye yàlla ko yàlla lafal cat yàlla ko yàlla lafal cat te musal ko te muccal ko te garanti ko garanti fu mu jëm garanti fu mu jógee garanti ay waruwaayam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que nit ko am yar la nit ku sang sang la am na ñaani waajur toog naag papam ñaanal ko toog naag ñëpp ñaanal ko ba pare am na Ousmane Noël bil am daa moo ko yeyoo daan sadji ngi ni moo di mi ko jar xalifatul si xiwal muxtaar yaa fi di